Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée. nouveau hein. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser des commentaires. Un plaisir au nouveau les gars et chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait pour le Monténègre, 14 régions du Sénégal. Roukrouxa di gorgora di ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital et ci du yi tëdd feebar. Yàlla na suñu borom fëgg seen bopp nga wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen aussi erreur judiciaire Guinéen ñu deful moo leen fa yóbbu. Suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dédoo àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi On avance ensemble dans la magie des Sport TV, l'actualité en continue gars yi actualité bi nag gars ñu fas yéene waxtaan li nga xamé donc ki di Top Muller di donc entraîneur adjoint woon Bour Nagelsmann da di gars sacré ki nga xamné moy donc ki di Jürgen club ak ni mu géré woon équipe bi mais également wax ci mooy guéguerre bi commencé am diggante Real ak Barça loolu ñu fas yéene ci nay leeral mais gars bu len faté tay deuxième numéro euh, rubrique stratège donc dañuy waxtaanee ci Mikel Arteta ni muy jouer et tout donc aujourd'hui Arteta avec l'art du pressing leneen fas yéene waxtaanee donc ci Baba Show lay amé gay donc dem leen abonné buñ ko dougalé aussi nañ la wax ne dugal ngeen ngeen dem ko parce que day bax aussi ngeen yok sen xam-xam xam entraîneur bu nek lan lay teg mais aussi gay Sénégal tay lay jouer mok Nigeria jëm si nga xamné ne nag donc euh, tournoi pré olympique hein pour qualifier wu li nga xamné moy donc euh, Jeux olympiques donc Sénégal wara dajé ki nga xamné moy donc Nigeria Nigeria donc lii nag di 14 14 au 28 août la yam mais gars yi ki ngeen gis nii mooy Danilo Orsato arbitre la moom dañ ko laaj ban ban kii joueur moo gën a compliqué euh, wala bu gën a métti entraîné mu ne De Rossi ñu ne ko lu tax mu ne parce que dafa xam règle football dafa xam règle football et gars yi je pense que ñi nekk passionné ñëpp da ngeen war xam au moins même bu tout lépp ci règle football et on va vous aider à le savoir ki nga xam ne également nag mooy Vinicius Junior gars yi tey lii la posté le vrai 9 des 9, kii mooy le vrai Ronaldo el phénomène pour ñi xam football laay wax nag ah ñi yàgg football ñi xam football dëggantaan non kii mooy Ronaldo gars ki moy Ronaldo El Phénoméno ki nga xam également nag gars yi donc Nicolas Jackson de mom ni la fété premier match mom jexé mom ak agent ki xam donc Diomansy Camara gars yi Diomansy camara, nante la c'est un businessman ba pare mu ah, c'est un agent bo xamné mi ngi yobbu joueur ni fi ñu bëgg yegg mais aussi dafa maîtriser système bi ki nak di Michael Olise mom nak fini ne day waaj dem ci Chelsea Chelsea nak gars yi jënd bi doyna Chelsea dal mi ngi jënd boy buñu dégg ne baxna jënd nañ ko fini ni jënd nañ ki nga xamné moy donc Olise hein c'est presque fait Matteo Lavia également ñu ngi koy ak ñi nga xam donc Liverpool ah ki nga xam également moy Tottenham wax naa leen ko ñom fi né ni dañu attaqué dossier bu Romelu Lukaku Juventus ak ñi nga xam donc Chelsea ñoro doon waxtaan Chelsea bugg ko jaay nak ñi di wa Tottenham adversaire am na mais Juventus tan yi daal seen bi dafa xaw a sedd moo tax ñu jàpp ne mbiru Tottenham bi mën na nekk tamit gaay li tax nak Neymar demul du côté de Barça gaay yi nee nañ ñoom Matteo Almani ñoom ñëpp dañoo d'accordoon ay ñoom Laporta pour mu ñëw mais Xavi mo wóorwul Neymar pour mu ñëw parce que am rek blessure mais aussi hygiène de vie joueur bi Neymar franchement

gannaaw bu ñu ko opéré ci genou droit bi loolu daal la gars yi kii nag di Luciano Spalletti moom am na accord de principe ak ñi nga xam mooy donc waa Squadra Azzurra pour nekk seen mais problème mooy ñii di waa Napoli dañ ne clause pour ñu bàyyi ko 3 millions même bu fekkee ne entraîneur ba léegi il est sous contrat avec Napoli mais nag ki nga xam ne mooy leur De Laurentiis nee bëggee mën nañu waxtaan ah, mais 3,5 millions daal lañ a fay mooy mën nañ ko a wàññi kii nag di a dem bu yàgg la d'accord ak ñoom mais waa Fulaam ñoo bañoon fi mu ne nii nag déggoo mi ngi waaj a ah, parce que waa euh, euh, réactivé nañ piste bi ah, daal bu ñu jëndee Neymar jënd Arnautovic gars yi déwén dina championnat bi dina metti de en parlant du championnat saoudien tay donc le match bi diganté yi nga xam donc Al Ittihad ak Al Nasr le duel hein, des deux derniers hein, du ballon classé premier et deuxième du ballon d'or européen muy ki di Benzema ak Sadio Mané ñu wara dajé Ronaldo également wara dajé ak son ancien coéquipier de la Casablanca kii nag également gars yi ngeen gis ni ah hein, di Mason Greenwood fi mu nak ki nga xam donc Eric Ten Hag ubbil buntu pour mu daal ñew mais nak dafa am ab enquête bo xamné ñu koy def en interne du côté de Manchester pour déterminer ndax boy bi day ñëwaat ci équipe bi wala dañ koy jaay wala lu ñu def ak moom Amadou Onana waxoon naa leen ko ne Manchester da ko teg gët fi nak Manchester mi ngi avancé 50 millions dal lañ bëgg proposer Everton pour dal di jënd le milieu de terrain sénégalais d'origine ah, donc André ah, Amadou Onana 50 millions dal la ko Manchester bëgg jëndé ki nga xamné ne également mooy Manchester ba légui mi ngi wëy di wax ci waxu Pavard mais Pavard da neex gay yi Pavard am fula dama ko fan <laughs> gay yi Pavard daa dem France fi mu mi ngi Paris ah nekk ci boîte de nuit di nan di tox chicha ma ah, pas nan bière mi ngi nan xaw ma lu mi nan mais di tux chicha et tout donc tam moom nee daal dafa bëgg jobbi bëgg Bayern mu ngoog gars aussi temps yi topp quoi parce que Rulli mooy gardien bu kii Ajax dafa waroon a dem Bayern signé pour ñëw nekk doublure bu ki xam mooy donc Neuer mais malheureusement doon joué mu daal di blessé ah, moom fi ne donc malheureusement dafa blessé luxation de l'épaule la donc du dem ki nga xamné nak moy top Topp Müller mooy waa ji nekk si ginnaaw nii Nagelsmann ku njool ki légui nak moy entraîneur Eintracht Francfort moom dafa daal di écrabouillé ki nga xamné moy donc euh, Tuchel Nantema nee na ko Tuchel ba mu ñëw avril dégg naa ko mu nan non joueurs yi physiquement nekkuñu ñoom kii woog yooyu di wax ñom Sadio Mané ak yooyu donc nee ak respect bima am ak pour Tuchel ah, parce que dama ko respecter mais mom bu mi ñew xamone nañ équipe bi lan la mënon na gagner manam Bayern mi ngi woon en compétition demoon bo sori ci Ligue des champions nekone premier ci Bundesliga euh, coupe également d'albanie mu daan di yóbbu ci kaw mais nee dafa dafa ñew rek ben gagnewul dara zéro titre pour le Bayern de Munich ba Thomas Tuchel donc on est aujourd'hui problème physique bu amé ak yoy yenn joueur yi bu ñu amee problème ak yoy nañ ko xol ci Thomas Tuchel mais pas du côté de Nagelsmann donc pour Tuchel ñëwé dal mom li muy junj mooy que ne si la mbir yi di yàqu gars nak yeen man gis-gis ngeen ci am gars nak li mo nekkone information yi en hein, toujours plaisir de vous servir wala di like wala di abonné dina épingler lien bu Baba Show ngeen dem fa abonné en masse gars yi ci kanam au plus tard 17h di ngeen am vidéo bi ci Michael Arteta d'accord et l'art du pressing pour yokk seen xam-xam am na beneen buy ñëw yeneen affaire yu ñëw gars yi su baaxee si yéen la su bonee si ñun la jàpp leen si bës leen ci lien de notification bi ngeen dem fële bës ci cloche bi pour njëkk a jot vidéo yi jaa ngeen jëf